xoolee collecture bi euh, mais nag euh, askan wi ñu ngi circuler yooyu mais ndax fii dina wóor non non non bul daaw bul daaw doo daaw de doo daaw da tax ah. nañu nañu nañu dem si beneen côté bi parce que tamit mbooloo bi bari nañ bari goo xamante ni gis ngeen oto. Amidou taxawal rek s'il vous plaît nga waneel ma oto policier bi noonu ni mu voilà gis ngeen oto belende police bi moom si euh, digg tali bi la taxaw fii si place de l'Obélisque euh, mu nekk euh, situation boo xamante ni moom ngeen di dund fii si place de voilà mu mu mu ngi noonu en tout cas oto bi moom taxaw na fi mu taxaw rek. bougé wul waaye tamit voilà mu ngi noonu mais daf mel ni euh, dañuy waaj def tir grenade lacrymogène parce que jumal ma noonu policier bi yor na yor na bi dafa mel ni dafa bëgg a dóor grenade lacrymogène par rapport ak askan wi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo fi nekk mais nag seen lim dañoo gën a bari beneen côté bi tamit ba ma ko wanee la nga manifestant ñu baree noonu baal ma nga tourné caméra nga waneen ma beneen côté bi tamit Euh, mun nañu wax ne limu manifestant yi euh, jamono ji euh, foofu tamit ñu ngi amal ñu ngi baare ba tey li nga xam rek moom mooy tali bi waaye nag di ñëw si beneen côté bi ñenn ñi nag duñu ay manifestant parce que ñenn ñi dañuy doxi seen soxlaak yooyu waaye yaakaar naa ne comme ni ngeen ko gisee en tout cas jamono ji ba tey rek takk der yi ñoom taxaw fi ñu taxaw rek di di di di di di amal seen patrouille yenn sax si ay yenn yenn si ay oto Euh, oto la ñu nekk di wër koñ yeeg euh, ni ni mel euh, fii si place de l'Obélisque parce que toilette tamit gis ngeen place wala fii di marché bu Colobane foofu yëpp dañ koo taal hmm? dañ koo taal ba mu voilà dañ koo taal ak safar si bari na foofu circulation bi tamit mënul wëy ndax ndaw ñi dañoo baare tali bi n'empêche que nag si beneen côté bi foofu mënuñ fa am accès pour wan leen image bi parce que c'était difficile waaye policiers yi tamit seen lim bari na foofu bari boo xamante ni kenn mënu fa àgg ndax dañuy tere tamit ku fa ku fa romb ak noonu loolu tamit mu nekk loo xamante ni euh, am na fii en tout cas euh, fii si euh, diwaanu Colobane lu jëm nag ba tey si voie wu place de l'Obélisque bi Amidou gis nga oto bi yi nga xamante ni moom moo fa taxaw moom taxaw la fa def pour kenn bañ faa romb stratégie bi mooy bu fa benn manifestant àgg ndax manifestant yi ñoom dañu woote woon tey pour mën a ñaxtu doxalinu président Macky Sall ak li nga xamante ni moom mooy euh, report élection bi euh, loolu nag ñoom jàpp nañ ne euh, du yoon moo tax dañuy woote manifestation kuréel bu ñu tubbee aar suñu élection yi tamit ñoom si talaata ji aju war a nekk fukki fan ak ñett lu ñu xamle nag mooy ñoom tamit dinañu fa yéene amal seen doxam ñaxtu. Euh, sur euh, toute l'étendue national euh, si jamono jooju nag grève yi moom bari lool ndax syndicaliste enseignant maanaam jàngalekat yi ñoom ñoom tamit dañu jot a décréter ab euh, euh, débrayage ndi ci tey jii euh, si école yi daanaka bu fukki fukki waxtu si suba gi jotee école yu bëree bëri rawatina nag fii si Ndakaaru am na si ay école yoo xamante ni moom daanaka bi fukki waxtu jotee si suba gi daal nañuy arrêté seen seen i cours loolee nag syndicaliste enseignants yi ñoom ñoo ko daal di décréter ñu gis tamit yeneen si ay kuréel yoo xamante ni ñoom tamit daal nañ soobu si xeex bi li ko waral ñoom it euh, ba tey mot bi lenn la ngir ñu daal di amalaat élection yi si ni moo gën a gaawee euh, tout à l'heure tamit euh, kuréel bii di F24 amal nañ ndajem taskatu xibaar ñoom tamit doon exiger ngir ñu amal élection yi tey ñaawlu doxalinu njiiti réew mi Macky Sall tey ñoom tamit ñu ngi sàkku lii di CEDEAO bi nga xamante ni tey jii moom moo ëmb yenn si ay réew yu Afrique ngir ñu mën a daal di jël seen i matukaay ñoom tamit te daal di wax njiiti réew Macky ngir ni mu nekkee mu daal di koy bàyyi ndaxte ñoom niñ ko jàppee mooy dañoo violé Euh, li nga fekk moom mooy euh, constitution bu Sénégal waaye tamit dañoo salfaañi ak ak yelleefu euh, sénégalais yi ndaxte élection yi si yoon cinq février bi lañ ko waroon amal malheureusement ab décret boo xamante ni wote nañ ko sa diwaanu assemblée nationale ñu daal di koy rek daal di wote foofu gis ngeen fee pour bi nga xamante ndaw ñi ñi ngi ñi daw di ñëw ci beneen côté bi noonu dafa mel ni policiers yi tamit daf dañ leen di dàq côté boobu gis ngeen mu nekk ay xale yoo xamante ni euh, en tout bari nañ ah bari nañ trop trop trop fii si place de l'Obélisque ndax lii wóor na euh, nga xamante ni euh, boo bu ñu ñëwee côté bi ñu taxawee oto police bi mu ngi taxaw à côté à côté si fu ñu taxawee noonu bu ñu dawee ñëw si côté bi tamit ndax policiers yi dañu replier wu ñoom tamit ngir mën a ngir mën a ñoom tamit daal di den sànni grenade lacrymogène parce que foule bi ñuy gis nii jàpp naa ne buñ ko téewul rek xëy na mën na leen a jaaxal mais nekk na Euh, loo xamante ni daal yéen a ngi yéen a ngi koy gis noonu en direct euh, il est 17h il fait 17h euh, 21 minutes en tout cas 17h 21 minutes moom moo daal di jot. en direct fii si palace de l'obélisque voie bi ngeen jàkkaarloo nag ak mbooloo bi nag mu nekk fii si diwaanu Colobane yéen a ngi koy gis noonu ndax du ñu dóor grenade lacrymogène parce que ndaw ñi damaat jëlaat nañ jëlaat nañ beneen côté bi. Euh, ñu ngay daw en tout cas gis ngeen noonu dafa mel ni auto police walaal mi auto police bi rek auto police bi mu ngi noonu en tout cas avance na avancé na di ñëw zoomal ma auto police bi mu ngi noonu ah di avancé mel ni luy dem euh, si côté manifestant yi gis ngeen ñu ngi noonu di tiire xale yaa ngi sànni xeer ama nañu arrière tuuti rek noonu arrière tuuti tuuti tuuti nank nank voilà ñu ngi noonu di sànni xeer voilà ñu ngi noonu di sànni xeer mais policiers yi ñoom tamit euh, et attention policier bi mu ngi noonu di chargé di gazé ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy manifestants yi euh, ñoom tamit ñu ngi noonu làqatu ñoom euh, manifestants yi ñu ngi làq ñu ngi noonu di sànni xeer wanal ma xeer yi fi muy jugee gis nga xeer fi muy jugee policier yaa ngi door ñoom tamit ñu ngi daal di gazé fii si Colobane gis nga noonu ñu ngi noonu ba tey di dóor ga am na ñu jël xeer di ko baare noonu gis nga xale manifestant yi ñu ngi continuer euh, di jël xeer bi di ko di baare tali bi ñu ngi koy baare noonu donc xeer xeer yi ñoom seen arm la moom la ñuy jël ñoom tamit di ko kale waaye tamit ñu ngi continuer di sànni rek auto police bi euh, mu ngi mu ngi arrière parce que xeer yi tamit ni muy ñëwee ab pression dëgg lay ñëwee gis ngeen mu ngi mu ngi chargé arme bi nga xamante ni moom la yor euh, pour mën a wëyal tir grenade lacrymogène bi gis nga. manifestants yi tamit ñu ngi ñu ngi noonu bu ñu dóoree grenade lacrymogène rek ñoom tamit ñu daal di koy xeer yaa ngi noonu ba tey fi mu ne nii moom oto mënatu fee jàll parce que euh, manifestants yi mujj nañu réussir euh, daal di ñëw mais tir grenade lacrymogène mu ngi enchaîné euh, côté boobu nag di fàttali ne ab benn jàkka moo fa nekk à côté noonu donc dal na si kaw waral ma noonu grenade bi mu ngi noonu si kaw zeng jàkka bi noonu muy saxaaree noonu en tout cas benn grenade dal na si kaw si kaw noonu. voilà mu ngi noonu si kaw noonu gis ngeen noonu si kaw la dal heureusement euh, daal nay seey gis ngeen noonu si kaw euh, ba tey si kanam manifestant yi ñu ngi taxaw rek daanaka am na benn puus puus benn puus puusu jaamul boobu moom dañ koo puus ba si kaw tali bi ngir mën koo baare voilà puus puus la ñu utiliser rek pour mën koo daal di baare voilà ñu ngi dàq ñi nga xamante ni tey du ñu ay journaliste waneel ma ñooñu ñuy dàq policier boobu mu ngi noonu ñu ngi noonu di dàq ñi nga xamante ne ñoom ñoo di. ñoom ñoo di euh, ñenn si ay euh, ñoom ñoo ay journal policier yaa ngi dàq noonu ñi nga xamante ni tey jii duñu ay euh, duñu ay journaliste parce que dañ yeen di jaawale wala mën nañu leen jaawale ak ay manifestant voilà donc jàpp nañ ko moom lañ koo aaye mais moom jàpp nañ ko dañ koo aaye moom nee na du dem ñu ñu daal di koy jàpp mu ngi noonu ñu ngi koy dugal si fourgon. police bi nag fourgon bi nag ñu ngi ko tuddee fourgon éléphant mën nga ma zoomal noonu éléphant bi noonu comme ni ngeen ko gisee euh, euh, ñoom nag souvent dañuy am ay appellation donc si fourgon éléphant bi euh, moom ndaw boobu jot nañ ko daal di arrêté gis ngeen ba tey saxaar saa ngi jolli ba tey si beneen côté bi mais terewul ne manifestant yi tamit ñu ngi continuer ba tey rek daal di taxaw foofu saxaar si mu ngay wéyal di jolli auto police bi mujj na mujj na arrière oto police bi mujj na mujj na arrière delluwaat place am delluwaat fi nga xam foofu la taxawee euh, pour bañ a perte position bi nga xamante ni moom la amoon mais si euh, yeneen koñ yi am na am na si manifestants yi nga xam ñu ngi génnaat si beneen côté bi gis ngeen gis ngeen mbedd boobu ñi ñuy génnee mu bare daa mel ni nag ñoom dañoo làqatu woon si beneen côté bi donc manifestants yi dafa mel ni dañoo dañoo làqatu woon dañoo làqatu woon si euh, si beneen beneen côté bi noonu ngeen di gis noonu. donc euh, retourné waat nañ ci beneen boor bi parce que auto policier bi wàcc na mais am na benn pick-up boo xamante ni donc euh, ay élément ay forces de l'ordre la def donc euh, ñu avancer tuuti rek pour mën leen beneen côté bi noonu auto auto policier bi noonu mu ngi avancé mu ngi noonu di arrière di dem tout à l'heure ñëw na ba ba si digg tali bi mais retourné waat na. delluwaat si fi mu nekkoon